taaji xaqaa'iqi anwaarika zaatiya wa sirri tajalliyaati qudusiyika man tafajjarat minhu yanaabicu alxikami alilahiya walmacaarifu laduniya ixwata almushahidina alkiram nuxayikum bi lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi nga xam ne yéen a ngi janoog ñun fii ci télévision bu mag bii di Nabi TV officiel ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu aq di leen baal aq di leen masawu coonoy jamono di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala tawfiq ak taysir ak barke di leen sàkku ñaan di ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal ñu jàmm suñu réew dàqal ñu mbas mile defal ñu sutura defal ñu tawfiq wër ak wër la jàmm ak salaam yàlla yërëm ñi génn àdduna ci mbas mi ak leneen lu dul mbas mi yàlla may ñu suñu kilifa diine yàlla bàyyi leen fi yàlla def yërmande ci suñu kilifa adduna yi ba nga xam ne ñañu yilif dañu daal di am ci ñoom yërmande yërëm leen sopp leen fonk leen nawloo leen que loolu dana ñoŋal seeni fauteuil ndax ko yërëm mu yéene la la nga yor koo yërëmul nag la nga yor du la ko yéene loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax di masawu sénégalais nag ci coono yëpp coono mbas mi le coono psychose mbas mi tiitaange bi coono tëj leen ne du ngeen dem puisque bu ngeen demee mbas mi day yaatu ñu ko daan couvre-feu coono jafe-jafe coono métit coono ay mbokk yu dee te mënuloo ci tus loolu yàlla rek ko mun a tegg yàlla na yàlla teggal ñu su loolu passé ñu ngi seen émission taxawaayu jigéen démb ak tey ci biir société waaye tey li ñu bëgg a waxtaanee mooy lan mooy maye doom yu baax puisque dañoo seetlu ne mbaax yombatul ci àdduna rawatina fii ci senegal nit ñu baax yomba tuñu bareetuñu nit ku baax bareetut te doomu aadama góor ak jigéen a ko jur waaye jigéen ci ëpp doole kom dañu nekk ci émission jigéen lan mooy tax jigéen ñi am jur ñu baax ci lañu ñëw waaye laataa loola donte waxtaan dañ koy def remise ñaari waxtaan faw ñu mba ñu am lu ñu ñambaas comme dañu nekk jotaay diine ci lii xew ci semaine bii ci wàllu daara ci réew mi puisque ñun mënuñu nekk ay produit pur et yu daara suñu bàyyi def fanweeri at ak juróom di jàngale alquran 1980 ba léegi wala lu ko ëpp sax nag moom dundam yëpp mu def ko ci daara suñu maam nekk ay du daara daara sëngéem di jooy ci réew mi rawatina fii ci ndakaaru ñu ne pat bañ cee wax wax nañ ci ci Facebook bi ci direct waaye ci émission bi dañ ci ñambasaale dara te du gudd ci ñaari point rek lay doon ndax xëy na loolu nekkul lu ñu tax a jóg tey fii ci wax jotaay bi benn bi mooy ñi ngànk réew mi en commençant par njiitu réew mi ba ñu koy jàppale man lima ma gëm mooy ay jullit lañ waaye nañu bàyyi xel ne daara ku ko màbb màbb nga sa ku seetaan ñu toroxal nitu daara toroxal nga sa alaaji Abdul Aziz Dabakh da doon wax ne Serigne Touba ak alaaji malik seen xam-xam yu rëy dañ doon jël dañoo jëloon àll teg ko seen lupp di jàng seen ndey mooy daara maanaam réew mi Sénégal li ko wër yëpp muy Mali muy Mauritanie muy Guinée muy Côte d'Ivoire muy euh, Gambie dëkk boo ca dem da nga fa fekk mu am coup walla wala mu am xeex ethnie Sénégal côte dong moo ci mucc muccuñ ci parce que dañoo gën a baax ñafa dëkk muccuñ ci parce que dañoo ëpp xel ñafa dëkk dëkk déet dañ cee mucc parce que yàlla dafa am ay nitu yàlla yu baax yu mu rus yu nekk fi yu nekkul foofu ñooñu nag seen cosaan seen ndey seen seen seen sirlu mooy daara alquran bàyyiwuñ fi dudul ay daara ak i jàkk ak njaboot yoo xam ne ci loolu lañ ne kon képp ku seetaan yaa xam te diine ku màbb daara màbb nga diine kon faw sëriñ si gën a bàyyi xel seen njaboot yi nga xam ne ay sëriñu daar lañ ñu di leen défendre parce que réew mi ñëpp bari bëri nañu mérito kaso wala toroxtaange wala duma waaye du nitu daara yeneen bi sallallahu alayhi moom moo wax ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ku gën sama xeet mooy ki jàng alqur'an ko jàngale waaye yow nga fekk ku gën ci xeetu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga di ko toroxal su kooku defoon ndëngate sax am na noo war a ko jàppalee ba du ñaaw parce que dafa am ñoo xam ne dañoo dañoo nekk tànneef même bu ñu defoon ndëngte am na nu ñu war a jëflante ak ñoom puisque ñooñu ñooy sang mbindee fii waxuma nag impunité parce que baaxul ci réew deux fois deux mesures te état dafa am ñaari doom doom boo xam ne da ko sang ba mu set mooy ki jàng français di jël ci impôt yoo xam ne ñun ñëpp di ko bokk ku ci am bac ñu utal la professeur bi lay jàngal français wala anglais wala espagnol di ko fay yow mi sax léeg ñu may la bourse ngay jàng am koo xam ne état du ko defal dara du ko may dara du ko sarax dara du ko dimbali ci dara muy doomu daara te doomu daara boobu waaw muy doomu daara te doomu daara boobu euh, lépp lu mu lu ku dee ci réew mi ñu ne imaam kaay jullee wala sëriñ bi kaay ku ci sa ndey dee wala sa baay sëriñ bi ka jullee ku ci bëgg a takk soxna nga ñëw ci sëriñ bi ku sa bët nga jaaxle nga ñëw ci sëriñ bi dégg nga képp koo xam ne yaa ngi ngénte nga ñëw ci sëriñ bi te loolu rek a nekk ci àdduna takk sëy dee ak ngénte loolu yëpp doomu daara ko def ci dëkk bi te amuñu benn salaire ñooñu am na luñ warloog ñoom mais du leen torxal nag te réew mii ñi fi tekki maanaam boo ci secteur informel bi ñi nga xam ne liggéeyuñ ci état dañu commerce dañuy business dañuy menuisier dañuy mécanique ñoom ñoo yor réew mi ñoo tax réew mi tàkkul réew mi xiiful réew mi marul commerçant yi nekk Sandaga ak HLM ñoom ñëpp ay doomu daara lañ rarement nga fay fekk commerçant bu am ñett fukki bitik ñeenti bitik di dundal juróomi nit fukki nit këram am ñetti soxna am ku jóge ci àll ba ñëw dal ko fekk kooku dafa nekk nitu français nitu français ku ci nekk kilifa almadi gee ngay dem jënd kër wala sacré kër wala kii yow sa jabar sa keneen du dugg kenn du fa ñëw lii situation mi kon nag nañ ñu bàyyi ñu ñu nekk ci man nag fi ma ciy daañalee mooy sama mbokku sëriñ si nga xam ne ñoo yor daara gis nga violence arme ku amul dëgg buleen toj xeer bu leen dóor policier bu leen ko poñe bu toj xam nga lu ngeen di def sëñ bi ku am teen wu ne xab te wexul du rootaani ku yàlla jox kurus jox alquran jox diine jox ñaan gu nangu su la nit fontowee bukki bu yebee ponkal ci doxin wala bu leen ñaanal kenn dee wala mu alko waaye ku taxaw pour bëgg laa faagaagal bëgg laa toroxal bëgg jël say taalibe yóbbu xam nga nu ngeen di defam jël leen seen kurus wàccee kaamil sax dafa gudd jël leen seen kurus rek ci biir kaamil gi xam ngeen aaya xeexukaay bu baax xam li ilaa fi xuraysin xam ngeen wa kafaru bi gazihim lan yanaalu xayran wa kafa allahu almuminina alqitaal wa kaana qawiyan azizan xam ngeen yaasin ak 306 miimam yi ku ngeen fa dugal di ko wird du ko nettali ay mbokkam képp ku bëgg taxaw pour faagagal seen daala yi ah yàlla jox na leen nag droit jox leen doole seen misil yi ngeen yor Alaaji Malick Si bi ko tubaab yi waxee da yor arme dañu xeex mu leen waaw ana sa arme mu génne kurusam ne nii jël leen seen kurus dugg seen néeg wax ak yàlla mu sàmm leen sàmm seen daara yi faagaagal ku leen bëgg a faagaagal am ngeen ci droit la meilleure façon Euh, ni ko tubaab waxee maanaam façon bi ëpp solo pour aar sa bopp mooy attaquer attaquer nag ku nekk méthode bi ngay attaquer c'est Seydil Hadji si na mu attaqué woon tubaab ba gagné ba samp dar zaawiya samp ndakaaru samp feneen jël leen seen kurus wax yàlla bu leen ñaanal nag kenn alku wala na dee wala fer waaye ku ngeen xàmmee kii ku yàlla jox dara la ci doole mu taxaw bëgg jël doole gi utiliser ko ci caga yi pour jëlee leen fi utiliser ko ci drogue bi Alaaji Abdou Dabakh ne na balaa ngeen xeex xeex leen daar xeex leen drogue ñaata góor jigéen ñoo ne ci réew mi ñaata càgga yor seen carte ku leen romb doo parce que yor nañ seen carte ñoo ne ci réew mi ñoo xam ne ku xool seen biir yaa ngi toll ni ndax riba gu bëri ñoo ci réew mi ñooñu ñoo gën a yooyoo karwaas gën a yooyoo kaso ngeen bàyyi fa ñooñu ñoo ñoo xam ne ñooy tànnefu yàlla ci kaw suuf ñooy taqandeeru yàlla ci kaw suuf ñooy fomp ronkoñu lislaam ci kaw suuf moo ñu jàngal diine ngeen fekk fa xam nga ne sëriñ boo fekk ci daara mbéj ko wala dóor ko wala toroxal xam nga ne fa nga ko jëmee du foofa sëriñ si fépp ay seen place ba mu des kaso ba mu des karwaas ba des commissariat ci fi nekk ci jàmm mu neex say bokk di nguuru diine moo tax te diine gi sëriñ see ko ngànk à bon entendeur sali loolu laa ciy wax euh, sëriñ si yàlla na yàlla sàmm leen sàmm suñu daara te yàlla na yàlla faagaagal képp ku bëgg faagaagal lislaam yàlla na yàlla faagaagal toroxal toroxal ba ne tot képp ku bëgg a tox toroxal daara ak koo mënta doon ak loo mënta am yàlla la ëpp doole la nga am ba koy xeexe yàlla moo la jox tal gi jox la wër gi bu ko yàlla roccee doo ko mën soo bëggee xeex yàlla nag ñun ñi nga xam ne jàpp nañu ay taqandeeru yàlla lañ ci kaw suuf ay jullit lañ amul nga dul suñu diine suñu daara ñaanuñ kenn lenn loo am jëlal ñun lu ñu bëgg rek mooy ku ñu bàyyi ñu yor suñu daara di jàngale taalibe yi di yelwaan bëri na ku ne taalibe di yelwaan papam yelwaan noonu la maamam yelwaan noonu la najaayam yelwaan noonu la ba mu dund ba mu feebaree wala ba mu nekkee xale téere yam doon takk ba mu nekk nit ñun ñoo ko bind ba na ci koo xam ne sax nguur ga mu toog ay nitu diine ñoo ñaan ba mu toog fa kon kenn ku ci nekk war ngaa ormal nitu daara yi te loolu mooy dëgg mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg mooy dëgg naa ëllëg doole nag kenn du ko yor di ko jekku di jekkale ay noonam soo jekkoo say noon da koy baale jàmbaar du jekku jekkale day jekku jekkale jekku jéggale waxantumaa nag ñi nga xam ne duñ say noon yàlla na yàlla may dégg topp kon xaasi moor li des ci temps bi ñu dàqanteeg moom ci lii maye doom bu baax mu mel ni réew mi doom yu baax yi bëree tut parce que doom buy jaay drogue doom buy sàcc doom buy naan sàngara doom bu góor jigéen doom boo xam ne dafay franc-maçonnerie pour yor xaalis pour làqatoo di toog kilifa yi fekk franc bu ngand la bëri na fi te nag du doom yooyu la réew mi suuxatoon ba Sénégal di Sénégal bi Sénégal di baax bi Sénégal di nekk réew Seexul Xadiim réewu Seydil Hadji Malick si réewu maam bu Kunta Njaasaan réewu alhaj maam Limaamu Laay euh, alayhi salaam réewu alhaj Mouhamad Saïd réewu sama maam Haaji Omar al bi senegal di senegal googu foo dem xencu ay nitu yàlla boobu doom yu baax yi bañ fi nekk boobu doo gis seen biir dëkk yi góor jigéen xel xalaatu ko doo fa fekk franc-maçon doo fa fekk naankatu sàngara bariwul woon xanaa ci ceddo gi ak ña doon jaamu seen kii Seydil Hadji Malick ak Serigne Touba ñëw ak mag ñu mel ni ñoom Alhaji Mouhamed Lamine Dramé Ndande Alaaji Ahmad Baro Mbuur Papa Thierno Mansour Baro Alaaji Ahmad Baro fële ca Thiès ñooñu ak Alhaji Mohamed Saïd Ba ca Médina Gounass Thierno Ahmed baaba Tall ak ña nekkoon Fuuta ci almaami ya ñooñu ñoo xeex travers Sénégal Alhaji Abdallahi Niass Baye Baye Niass ak Baye Niass ak ñu mel ni ñoom ñoo xeex ba réew mi ñu sot sotoo ko ba ceddo gi ña doon ñaan sàngara buur ya fi nekkoon di toroxal nit ñi caacaar gi yépp ñu raxas ko ba mu set affronté tubaab yi nag bil hikma wal mawisa hasana xam nañu tubaab yi am nañ kano ñoom ñu jël seen kurus yi ma doon wax sànq ak seen xel ak seen méthode ba yar doomu aadama yi ba ñu yaru yee leen ba ñu yeewu defar leen bañ di ay nit ba Sénégal nekk réew mu tuuti waaye adduna bi naw ko ku fi nekk président am ndam jàpp ne ci yow la waaye boo wàccee xam ne du yow réew mi am ñaan sénégalais fu mu dem rek dafay siggi bu góorgóorloo jub puisque réew mi moo am ñaan ñooñu nag ay jigéen na leen jur waaye est-ce que jigéen yi sol jiin yi bàyyi seen taat yi ci biti bàyyi seen ween yi ci biti est-ce que ñooñu ñu jur ñooñu mukk parce que yàlla du yàq yàqam du koy di ko def ci bool bu tilim jigéen boo xam ne ay ween a ngi ci biti tey boo jëlee téeméer ci suñu doom yeeg suñu jàng ak suñu jarbaat yi tey boo jëlee téeméer ci suñu doom yeeg suñu jarbaat yi koo ci gis la muy xënte di sol mooy jiim buy génnee ay ginnaawam mooy bëti buy génnee ay wenam génnee ay cëg daaw nag ay suufes ak ay yu kenn xamul ay col yoo xam ne sol ko ci saal sax ëpp naa def ci néeg rek la war a nekk nga sol ko di nongi nongi ci mbedd ma boole ci jël sa cuukeel bi mu mel nu njunxóoru ndunxuru nag nag bu am ndunxuru nga def ko noonu takk sa bopp bi ay cheveux naturels yu jar deux cent mille yoo xam ne xamu nag karawu néew la nga teg ko bopp di dox nag mel nu ab kuy màggat wu dox ci laalo boo rombe ay dof yoo xam ne ay néew yu dox la ñu ne la toj nga fi ngay xoggale ko ñooñu duñu jur ku baax duñu nàmpal ku baax du ñu am lu baax aduna te mbugal mu métti ñu ngi leen di xaar parce que yeneen bi saasam moo leen misaaloon mille cinq cents ans avant ñuy ñëw nee na kaasiyaatun aariyaat nee na du ñu dugg aljanna xetu aljanna du leen xeeñ te boo jegee aljanna juróomi téeméeri at xet gi xeeñ la te ñooñu mooy yeneen bi saasam jigéen ñoo xam ne dañoo woddu ba pare rafle parce que am nañu lu ñu woddoo parce que boo solee benn buddi buy jar vingt mille francs ñaata yére nga ci mën a am yu jub ñooñu nag kenn mënu leen fex bañ jur ku baax xam nga ne yàlla du jël ku mel ni Serigne Babacar Sy ku mel ni El Hadj Abdoulaye baax ku mel ni El Hadj Mansour bu mag ku mel ni sëñ Babacar Sy ku mel ni mansuur borom daara ji ku mel ni El Hadj Fallou ku mel ni El Hadj Mohamed Seyd ku mel ni El Hadj Seyd Nour extra ça passe mu di leen dénk ndey joo xam ne ay weenam a ngi ci biti ay juma xam a ci biti ay mukk ci àdduna yàlla da leen di xoolal ndey ju jub ñi baax ñëpp seen ndey dañoo baaxoon ba maara day ci àll def lu kenn mënta def parce que boo bëggee doom ju baax mooy olof naan barke ñett turu kese la am yàlla defalu ko ñeent defalu ko juróomi turu xale ci baayam lay jëlee barke buy dund ak ndeyam muy ay waajuram taalibe ci sëriñam lay amee barke jigéen ci borom këram lay amee barke te ñoom ñëpp nag jigéen a leen jur ki naan xale gi jigéen a ko jur kiñ naan sëriñ jigéen a ko jur ki ñu naan taalibe jigéen ko jur kon jigéen mooy centre affaire bi kon ku bëgg jur joom ju baax da ngay sol col gu baax nëbb say cër ci biti ba benn góor du ci teg bët bëri na koo xam ne dangaa ñëw ci ndaje ak kilifa ci àdduna wala soi-disant ka ñu woowee kilifa diine te saay-saay la mu gis la yónnee chauffeur am wala gàddu kooram peegal ma xale bee parce que la nga sol la danga duunal say ween tóoj ko ba mu gis ween yi comme moom animal la gis na koo xam ne animal la ni moom mu peeg la léegi boo ñëwee lu muy def mooy jox la ngooñ parce que xar wala yooyu boo ko wala picc boo ko bëggee da nga koy tegal la muy lekk nga fekk ko fa ngooñ gi mooy xaalis moom rek la xale gëm point loolu mooy benn mais képp ku solu sol gi jub rafet lool rarement tuuti na fu la nit di woo ci caaxaan parce que loolu du sax ñime parce que jigéen am na ay kanam koo xam ne ak tàcc yoo xam ne du waliyu du kilifa kenn ñimew ko loolu mooy fulla ci sa bopp jigéen warul saam boppam ni jën ca marché ba walla ni saamu mango wala saamu màdd ku ñëw làmb la mukk jigéen dafa war a nekk koo xam ne dafa valeur am valeur mel ni jamaa nga xam ne nit dina dund ba dee du ci teg bët ndax jafe wala mel ni zircon jigéen daa war jafe moo war a jafe sax nag matière yooyu ndax matière yooyu ay matière lañ waaye moom dafa nekk koo xam ne dafa nekk sang doomu aadama ci kaw suuf mag mu tol ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kilifa gu toll ni yàlla nga xam ne buuri feek yëpp yàlla moo leen daree dugal leen biir suuf te coow du jib xoolal mag moomu kan rus kan la bëgg ba ànd ak sagoom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent kan la kan moo ko ëmb jigéen kan moo ko nàmpal jigéen kon jigéen a rëy maqaama kon su ngeen bëgg te jur ñu baax ngal la dee leen nëbb seen cër yi jigéen moomul ne fàng ni béy ci xoolal mag ni booy xool seen photo bu njëkk ba man xale laa du ma mag quarante ans quelque tuuti xëy na laay am ma xale waaye du ma mag mais maa ngi fàttaliku boo duggoon ci néegu mag yi da ngay fekk ay foto ci kii yi ñu teg ko ñu taf ko ci kii bi ay photo yu ñu suyeere suyeere mooy yu ñu def vert dégg nga mais boo xool da ngay gis ñoo ne seen maam ak seen baay lañ doon photo def ko ci néeg ñi dañu sol mugg mugg rafet def ay euh, yére yu mot xoolal tëpp seen yii donte lislaam ko koy bañ mais ñoom loolu seen aada woon ba pare ñu def ay jaaro yu rafet ba pare xoolal doo gis seen benn cër mag ñi boo demoon sax seen fecc booy xool boo doon xool seen documentaire seeni fecc boo xool RT ñu tegal documentaire yàgg yi bu kilifa di ñëw genre ndaw rabbin fecc lébu la ñuy def dañu sol col gu rafet fecc seen cër du génn moo tax olof génn sa kër feccum sabar am na am am am na taasu bi xamoon ngeen ko dama ko dafa nekkul sama mbir moo tax duma ko wax donc li ma bëgg wax mooy nit da ngay bëgg sa bopp civilisé set mais waroo def sa bopp benn prix boo xam ne dangay ngay exposer sa bopp di jaay sa bopp appartement bu luxe walla pu la ko jox mën a àgg sa kaw walla fauteuil walla cheveux naturel walla portable kecc ɗum ko bolle puyde yu ñàkk fayda yooyu jigéen ju baax du jaayee boppam loola jigéen ju baax la mu jaayee boppam mooy la suñu cheikh waxoon ne la olof di mën a joxe ci première njëkk mooy sëru rabal mooy tolloog tey oto wala kër wala xaalis waaye nee na boo jëlee sa yàlla yàlla def ko première njëkk lam lay jox mooy doom ju mel ne Serigne Babacar radiallahu taala anhu nee na moo tax soxna Roqee Njaay jël yàlla def ko premier njëkkeem moo tax yàlla ba mu koy fay fayu ko seru rabal li mu ko fay mooy Serigne Babacar si si Malick fu ñu ko tudd ñëpp bëgg boo xoolee fotoom sax bëgg xam ne kii nitu yàlla la kon loolu mooy benn fi ma ci daanelee ci waxtaan wi mooy ku wax problème exposé ko il faut nga andi solution sinon doo wax wax problème noonu rek critiquer pour critiquer déedéet ne lii jubut jigéen ñi seen colin yi baaxut parce que moo leen yóbbee <laughs> ñu leen di def li leen di def moo leen di yóbbee ñu leen di siif ñu leen di siif siif bu civilisé siif bu agression bu civilisé mooy waa ji du la dóor du la saaga day jël xaalis teg ci taabal bi duggal la nekk def la loo xam ne boo génnee doo ko nettali sa ndey doo ko nettali sa daw dem yoonam wala mu jox la xaalis ne la yàqal affaire bi agressé moom li ko waral mooy yaa njëkk agressé parce que yaa jël say cër exposé ko wan ko sëñ Fallou Cissé doon wax ne wane ko tere ko yombul fekk ay ñu xiif nga leen lekk bi lekk ko bëri na ku ñu agressé mbedd mi mais xaalis bi da koo wane dafa génn yor xaalis wala yor portable am di nongi nongi gars yi mbéj la jël portable ku nga koy nëbb gis nga yàlla fi mu nëbb jigéen ku ko ndaw si joxul rek doo si jot moo tax benn sëriñ bu nekkoon Fuuta Galaya <laughs> du ma jaay turam yàlla na yàlla yërëm ko benn dëkk mag ñu ñëw ne ko sa taalibe nangam moo ëmbal mu ne ah omu yit naa na de waaye xam naa ne xam naa ndaw si bëggal na ko ko ndax loolu fi mu nekk ku ko bu ko joloon si jot ko yàlla làq yàlla lépp lu mu sàkk ci doomu aadama rek am na benn benn kii bu mu jàngale moo gis nga ñaari nopp yi pour déglu la lu tax yàlla jox la ñaar pour luñ la wax ci àdduna nga déglu deux fois ñaari bët mooy pour ngay xool deux fois benn làmmiñ mooy pour kilifa day wax benn wax am na su ma kilifa ko dégg mu ne birima ma ne ko ah birima de benn kàddu la yoroon <laughs> waaw kon tabaarakalla waxtaan waa ngoog solution bi mooy ngeen nëbb seen cër yi waaye di neexal seen boroom kër yi bañ di xëccoog ñoom jigéen soo jëlee say mbagg teg ko fi say mbagg jëkkër nekk jigéen boo jëlee say mbagg teg ko fu say mbagg jëkkër nekk di xëccoog moom di ko wan ne ay nawle lañ sëy di togg ak di paase di jaam amatul fenn mais fa ngay jëlee barke sa patron bi lay fay soo ko ne ñoo yem mais da lay dàq ci biti moo tax fasa yi bari ñun li ñu xamoon li yàlla digle yenent bi digle ko mag ñu baax ñu digle ko ña ñu jot am ci réew mi ñu baax seen ndey yi noonu moo jigéen day nekk suuf jëkkër nekk asmaan suuf bu taalee ko asmaan rek njëriñ génn nangu ommatu bootu di toppatoo sa borom kër di ko jaamu di ko taxaw lépp lu mu bëgg nga def ku ñëw ci kër gi xam ne kii kilifa gi yow yaay jaam bi yow yaay moom mooy sa sang faaw nga jur doom bu baax waaye jigéen bu bëggee nekk sang nga dugg ci kër gi ndaw si ëpp làmmiñ kilifa gi bañ naa xanaa sa borom kër nekk mu ne ankay ah ci biir sa borom kër ñëw mu teg saagam nga teg sa saag dégg nga loolu soo ko defee mais yow waa ji fan lay sentir kilifteef te yàlla dafa maandu gëmmul feebarul absente wul nelawul te loo def rek mu ngi koy xool loolu la lay fay kon jigéen ñi ngalla su ngeen bëggee am doom yu baax yoo xam ne dinañ reste fii juróomi téeméeri at ginnaaw bu ngeen génne àdduna seen tur des fi ni fi turu Seexul Xadim des desee seen tur des fi ni fi turu Seexul Xadim desee il faut ngeen góor góorlu il faut ngeen di muñ il faut ngeen wàññi seen bëgg-bëgg il faut ngeen jaamu seen borom kër yi il faut ngeen nëbb seen cër yi il faut ngeen nekk ñu nekk ci suuf bàyyi sa borom kër nekk ci kaw ba mu sentir ne moo nekk ci kaw yaa ci suuf il faut ngeen di bégal seen borom kër yi ci biir ak biti bu laajee nga dimbale ko sax lu mu laaj nga def ko lu tax ngir jaamoo ko yàlla def ci lu baax boo ci amee njaboot mu barkeel boo ci amul njaboot nga am payu yàlla su ko defee tey waxtaan wi ngeen jëggal ñu niñ ci dikkee mooy ay xol yu naqari ndax kat bu ñu gisee ñun ay nitu daara yu ñu dóor ba tëj seeni bopp ñu bëgg timto woone dañoo bàyyi ay doomu jaamur yu taxawaalu ci mbedd te junni doomu aadama ñu ngi taxawaalu ci mbedd te duñ ay taalibe loolu nañ def enquête ci ba xam ne ñii fa ñu nekk ñu dem def fa seeni kuugal maanaam li pëli naan kuugal tukuloo naan kuugal te bàyyi door borom daara yi ñu toog jàngale parce que ñoo yor réew mi loolu laa commencé woon loolu laa tëjee maa ngi nuyu nag xaaji Fata Sarr suñu magum daara di ko ñaanal di nuyu xaaji Maxtaar sama baay Aboubacar Kane suñu xarit bu baax bii nekk ci technicien bi di Mor Diallo yàlla yàlla defar mbiram defar suñu mbir may ñu mucc te may ñu mos ci xéwalu yàlla yi eh, yaa fii la ñu yemale waxtaan wi in uridu illa al islam mastataat wa ma tawfiqi illa billah lépp lu ci jub yàlla la lépp lu ci dëng ci ñun la ñu ngi ciy jéggalu parce que suñu yéene mooy defar yàlla na yàlla may dégg ak topp xasbunallah eh, wa ni'mal wakil haza assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu